mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam dangaa tëlee ngóor kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wallum douleur wàllum diabète wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyé ba mu set wecc nag mu ngi noonu képp ci ngóor kàttan xamante ne kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi. Coucou, hello mes gars, mes amis, Rita Paradis Massay Balago Faramaren qui est parmi nous. yéen ngi ànd ak suñu people TV ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa ne ah. tey nag may wax ci ñaar ñooñu nga xamante ne rek ñoo waral coow li muy Bril ak Dieyna Biril Jayna Biril Jayna bi di di lëmbe dëkk bi mais Biril Jayna lan lan lan moo ci yoonu Marichou ba bu ñuy wax dañuy wax Biril bi doon génn ak Marichou genre sénégalais yi nañu bàyyi yooyu di mele koo xamante ne yoonam nekku ci taqewu ci te laalewu ci pour man rafetul daal te naayisul parce que Biril ak Jayna bu ñu amee problème je pense que war nañu mën a régler seen problème te ñu bañ cee dugal beneen nit parce que Marichou dafa am famille am njaboot am ñu ko bëgg ay fansam yoo xamante ne ah ñu ngi fii donc bu ñu bu ñu bu ñuy dugalati photo nit wala ñuy dugal image nañu bàyyi di nañu éviter di jël images u jàmbur di ko coller pare di wax ci moom di wax ay waay Marichou parce que histoire bi dafa mel ni Marichou moom daf ci bokk te pourtant taxewu ci laalewu ci moom mi ngi woon këram ñoom bi ñuy dund seen enjoy bi ñuy nekkee ñoom ñaar di dundu seen love wala ñuy dund seen jàmm ak salaam wala ñuy dund seen en tant que producteur ak euh, artiste moom mi ngi woon këram yoonam nekku ci mais sénégalais yi nañu bàyyi di mélange loo xamante ne nii ah franchement c'est pas du tout normal parce que bu fekkee Bril ak Dieyna ñoo am problème rek war nañu mën a régler seen problème ciy dugal beneen nit wala ñuy collé image di wax ne que wala Bril ak euh, Marichou dañ doon génn ñun on s'en fout que Bril bu génnee ak Marichou parce que loolu ñun yegguñu ko woon xëy na Marichou am na discrète boo xamante ne nii am na copain am ba bàyyanteeg moom te kenn xamu ko donc bu ñu toog ba tey rek Bril ak Dieyna am problème rek kuy wax rek da ngay naan ay bril ak euh, parfois da ngay dugg ci internet bi sax nga gis benn vidéo boo xamante ne dañ ciy collé bril Dieyna daal di def Marichou Marichou moom yoonam nekku ci nañu bàyyi jàmbur tamit mu toog këram ah sénégalais yi nañu bàyyi loolu bu problème ame rek ñu ci dugal ay nit yoo xamante ne ñoom yëguñu tinuñu ñu ñu ngi liggéey seen liggéey discrètement kenn xamalu leen dara ñu nekk ay nit yu digne am ay nit yu am personnalité parce que après tout Marichou euh, c'est quelqu'un boo xamante ne ñëpp dañ ko xam ah muy def euh, liggéeyam kenn mus ko dégg dara si lu ñaaw genre affaire yu mel noonu donc waruñu problème am rek kuy wax rek naan Bril mi nekkoon mari Marichou comme si mari Marichou moom problème bi daf ci bokk wala affaire yooyu mari Marichou moom problème bi yoonam nekku ci quand moom mi ngi këram di liggéey liggéeyam sénégalais yi nañu bàyyi loolu tamit ah nañu bàyyi ñoom ñu régler seen problème autant que di ci boole ay nit yoo xamante ne ñu ngi nekk seen kër am discrètement di liggéey kenn xamalu leen dara ñu bëgg benn problème ñëw rek ñu bëgg xam nit bi far la force dugal ko ci ay problème yoo xam